di jumaay Touba ak nag mbokk yëpp ak mboolem fondation bi nga xam ne ñooy sëti soxna Juma Sëy ñu ñëw indi suñu liggéey tey jombul nag kuy liggéey ku ne sañ nga am looy ragal di ko see jañ wala nga am looy bëgg di ko see ñoddi waaye ñun tey bu ñu taxawee fii du ñu bëgg dara du ñu jañ dara du ñu ñoddi dara ndax jañ ak ñoddi mu ngi ci loxol ku tedd kii ci suñu ginnaaw di Seexul Xadim te gëm nañu ne fépp fu lu baax nekk ab lonkam jotoon na ko te dana ko lonk ba teg ko ci suñu loxo fépp fu safaan ba nekk itam ab dàqam jotoon na ko ba dana ko dàq ba duñu ko gis ñu ko dégg suñu liggéey nag fan lay jëm mooy xool pas-pas bi nga xam ne suñu ay waajur suñu ay maam daanañ ko doxee mooy seen lépp la la ci doon ay taalibe taalibe yoo xam ne waxuma la dañuy yem ci nekk ay taalibe Sëñ Tuubaa rek waaye dañ cee boole taalibee gu ànd ak ay jëf ndax jëf mënta weesu kii nga xam ne moom la ñu indi indi addiyam tey muy soxna Juma Sëy ku xam histoire am xam niñ ko tuddee jumaa ji xam ne pas-pas rek moo ko laloon ndax 1926 lañ ko tuddee jumaa ji 25 la sëñ bu mag bi joxe ndigal ci ñu sos jumaa ji mooy bi ñuy la bi ñuy dajale ñaar fukk ñaar fukk ak juróom-ñett yi te déwén sa soxna jumaa gane àdduna maam Ibrahima Sëy wax ne comme Serigne Touba tudd na jumaay Touba ngir ñu war koo taxawal sama doom jii tey jumaay Touba laa koy tuddee. kon pas-pas moo laloon loolu ak yéene yéene jooju itam nag mooy dox ba fii may wax ak yow moom soxna jumaa bi muy muy dund kenn gënu ko woon a bëgg jumaa ji waxtu wu nekk dara ñëw ci jumaa di indi ay addiyam waaye juróom wu tedd ma Ibrahima Sëy itam bi muy dund kenn gënu ko woon bëgg jumaa ndax pas-pas mënta weesu nga tudde jumaa ji doom waaye nga tudde waat jumtukaay yi nga xam ne mooy màndargal jumaa lu mel ne sóoróol tudde ko jom tudde na lu mel ne xutba bi doom ak yeneen ak yeneen ba ci xasida Sëñ Tuubaa mi daan bind ay jawartu jaalibatul maraaxib Eh, eh, inam na abdallah yëpp da ko tudde woon sëñ Tuubaa da ko tudde woon ak ak ay ay ay doomam ngir xam ngir am yëg-yëgu pas-pasu ne sëñ Tuubaa ëpp na ci man ma di ko tudde waaye jumtukaayam doy na ma sëkk ma di leen tudde ak njabootam pas-pas boobu itam moom lañ indiwaat tey ngir yeesalaat ko ci jumaa ji indi suñu addiye ndax yéen a jëm amoon rek moom lañ am yëg-yëgu mottali ko tey yéen a jooju it moom lañ jël pas-pasu ñëw di ko jëf ci tey jii ñu tàmbali ko tey nag waaye ñu am pas-pasu ñu am daal mooy mboolem loo xam ne jëf la joo xam ne warat rawat warat naa jëm ci biir jumaa ji ñun ñi nga xam ne ñun ñoom la ñuy tudd di tudd soxna Jumaa Sey ñu yëkkati lu toll noonu ñoo jébbal ko waa daayiratu Muxaddamatul Xidma ñu defal ni ko ci turandoo mu tedd wii di jumaay Tuubaa ndax ndax xam nañu ne sëñ mag bi amul lu ko ëppal jumaa ji xam nañu ne ñun ñi nga xam ne ñooy ay taalibe amuñu lu lu ñu ëppal jumaay Tuubaa ndax mooy suñu mandarga mi gën a kawe ci kaw suuf ñu tudde ko suñu maam kon daal ñi ngi sant bu baax di ñaanal Cheikh Ahmadul Muntaxa borom yàggal ko fi lool te ko di ñaanal suñuy kilifa Cheikh Ahmadul ak mboolem rakkam yi yëpp di ñaarin ngeen ñaanal ñu mboolem loo xam ne def ngeen ko fi am nañ pas-pas bu rëy rëy ci liggéey bi ndax dañoo war di ñëw di ànd ak yéen liggéey bi ndax gis nañ coono yi nga xam ne moom moom ngeen ciy daj gis nañ pas-pas bi ngeen koy liggéeyee gis nañ yéene ji gis nañ jàpp yi gis nañ yëg yi kon daal lépp loo xam ne war nañ jàpp nañ ne ñun la war ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm maa ngi jégalu lu baax ci kaddu gi lépp loo xam ne jumdale xam ne suñu matal la waaye lépp lu ñu mat ngeen di jiite ci nuyoo ak ziar bi saaxibul fadila Cheikh Mamadou Muntaxa eh, di ko ñaanal suñu borom lim naa la liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp suñu borom kàttanal ko mu ànd ko ñun taalibe yëpp jataay bii nag day jataay bu bu bu am solo ndax eh, buñ fi ñëwee ci turu Cheikh Mamadou Mourtada moom sin fàllu moom soxna Juma ak Cheikh Mamadou Yeddaali moom sin fàllu moom soxna Juma ak soxna Maam Faati Mbàkke moom Cheikh Mamadou Fadal moom soxna juma ñëw fii ci jumaa ji ngir indi ay addiya loola euh, lu yàlla la ndax ku xam bërëb bii euh, am na lëkkaloo lool ak wayjur soxna juma mi maam si murtalam sin fàllu ndax moom léppam sëriñ Touba la waaye léppam jumaa ji la woon ni ko Serigne Aboo waxe moom yëmut sax ci euh, kii waaye jumaa ji la ko bi Serigne Touba wàccee 1927 barab bii eh, sëriñ bi tëdd moo fi daan njëkk moo fi daan mujj nekkandoo woon fekk sin moor soxna ba sin moor soxna jógee fi mu nekkandoo woon fekk sin mu aafe ba ni mu wàcce 1951 eh, mu daan njëkk ci barab bi moo fi daan mujj eh, tur yooyu mu daan tuddee sin eboo wax na ko at mi sëriñ Tuubaa joxee ndigal 1925 mu fekke woon ndigal la 26 soxna juma juddu di waajur soxna juma di waajur sin murtala dani nañ ko tuddee pàkk bi bu jumaa ji taxawee ñu da ko wax jumaa ndax segem suma sëñ bi wax na jumaa jumaa ji dana am baraag bi sax tudde na ko doom rawdatu tuddee e, lépp jumaa ji sooroor xubba ba ca aynu raxmati ba tuddee sax lépp moom léppom da koo dellu woon Sëriñ Tuubaa loolu nag bu sëti soxna jumaa yi ñëwee tey ànd ak e, suñu sëriñ sin Moodu Moustapha Fall yi mu Seex Mamadou Murtada ak ñi teew ñëpp di njabootuk soxna jumaa loola dama ni lu yell la te it dini ko si na boo waxee rek li ab tàmbali la waaye ñaan na ñi ngi ñaan suñu borom liggéey bi am di yéene koo def di waa Moukhaddamatoul Khidma di liggéeyub suñu borom di liggéeyub euh, euh, yonente bi di liggéeyub Serigne Touba euh, ñu fa yéene ci ànd ak yéen njabootu soxna Juma gépp ci ginnaaw Cheikh Mamadou Mourtada mu Cheikh faadal Fadal loolu daal ci ay kàddu yu tënk rek ngeen xam ni lii moom ab tàmbali la rek ñaan nañ yàlla Euh, fun foo leen gestoo rek gis njabootuk soxna jumaa gi ci seen ginnaaw ak njabootuk maam Ibrahima Seye gépp nga xamante ni daa jëloon léppam joxoon ko Sëriñ Tuubaa ndax moom daa waxoon ni euh, tudde Sëriñ Tuubaa doom dafa ëpp doom ji mu njëkk am Ahmadu Muxneen taalaan sin na la ko tuddee teg ci aynu rahmati boo demee malaktu bi fadlillaahi jaalibatul maraaxib baa fale galwaa gi Sëriñ Tuubaa moom sax tuddee na leen euh, doom ba ci ay seex midaad yi ak ahbabtu léppam da koo joxoon Sëriñ Tuubaa kooku mooy maami Cheikh Mourtada mu Cheikh Mour Fadal mi nga xamante ni moom it la maamam ya nekkoon ca la nekk di ca wéy nekk ci ginnaaw Cheikh Mour Mountakha di ñaan yàlla yàggal fi di leen ziar bu baax it yéen moom Moukhaddamatoul Khidma ci liggéey bu solo bi ngeen di def di defal umma bi yëpp di dundal bërëb bi gën ci kaw suuf te mooy néegi yàlla yi kon liggéey boobu liggéey bu am solo la ñi ngi ziar bu waax di jéggalu ci kàddu yi. wa rahmatullahi wa barakatuh Serigne Modou ñu ngi lay nuyu. di nuyu sëriñ Abo mi doon yëkkati kàddu léegi ak Serigne Xat Fàkk Kabla mi doon ñaareel kàddu yi di nuyu mbooloo mi ngi àndal yëpp sunu di sunuy bokk di sunuy xarit di sunuy wëllëre góor ñi ak soxna yi di leen dalal tamit wuutu fi Serigne bu so mi nga xam ne moo jiite Muxaddamatul ma ngir dalal leen ci liggéey bu am solo bi nga xam ne indi ngeen ko muy ay bale ay sarpierre ak ay bale moquette nga xam ne moom la jiital ci loolu nga xam ne loolu mooy liggéey bi njëkk ci liggéey Muxaddamatul Xidma muy def lu aju ci seetal jumaa ji ci jëndi poussière bi nettoyer karo yi ak lépp loo xam ne lu fi yàqu la ci wàllu entretien loolu mooy liggéey bi nga xam ne moo jiitu ci liggéey Muxaddamatul Xidma ngeen ñëw fekk suñu ci loolu rek dafa doy sëkk ndax dañuy jàpp ne Euh, matériel boobu moo dul doy ndax fu ñu toll ñu ngi koy soxla kon su fekkee ne jiital ngeen ci loolu ci liggéey bi ba noppi nag ñëw nag ci koor gi ci liggéey bi nga xam ne moom it mille cinq la la ñëw muy aju ci dundal weeru koor fii ci ay waxtaani diine ak di ko dundal ci ay iftar di fi dogal nit ñi nga xam ne dañoo bëgg a dogu see ci sëriñ bi moo xam ñi nga xam ne am nañ man-man bi waaye bëgg nañ fee dogu say ak ñi nga xam ne new nañ ci doole suñ koy xayma daanaka mu mat ñeenti junne juróomi téeméer léeg-léeg sax mu mat ñetti junne ak juróomi téeméer léeg-léeg mu mat ñeenti junne di mbooloo mu bëri loolu nag euh, li ci gën a am solo mooy cëslaay muy njabootu Cheikh Ibrahima Sey suñ ko tuddee nag ñu ngi ciy jiital sunu sëriñ sunu kilifa Cheikh Mouhamadul Mourtada moom Cheikh Mouhamadul Fadal te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ci darajay xaadim rasul darajay waajur moo Cheikh Amadou Fadal di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu teg mu jàllaleel ñu ko ci Cheikh mo Serigne aboo Baraka mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Fallou euh, Serigne aboo mi doon wax léegi kàddu yi tënk na lépp dafay mel ne da ngeen a jël euh, batt bi delloo ko ci ndaa la gis-gis bi lu am solo la initiative bu rafet rafet la buñ dee xool daal dafay mel ne nangu liggéeyu sëriñ bi dafa mel ne dafay gën a feeñ rek ndax su fekkee ne sëriñ Ibrahima Sey noonu la taxawoo woon jumaa ji maanaam foofu la tolloon ci pas-pasam ci jumaa ji ñu dem ba mu yàgg yéen ñi nga xam ne yéen ay setam ngeen xalaat ne kat delloo ko njukkal war na ndax xéewal googu ndax ki nga xam ne moo la boole ci sëriñ bi amoon pasteef boobu lay ko ba ba noppi nga bokk ci njabootuk sëriñ bi doy doy sëkk ndam waaye nga nga bàyyi xel na moom kat pastif boobu mu amoon ci sëriñ bi ba jariñu ci war nga ko cay delloo njukkal ci nan lañ ko ciy delloo njukkal mooy bëgg-bëggam bi mu amoon ndax di wax la jataay bi sëñ bi woote woon 25 xam nga ne booba bëri na ñoo xam ne bu seen pas-pas dëgërutoon duñ xam ne jumaa ji dana taxawe nii ndax booba sëñ bi wax na ne sama borom may na ma ko ci géej gi ba wan ma ko junne yi ak malaayka yi ñëw nañ ngir bëgg koo liggéey ma ne leen dama am njaboot gu ci bëgg a tax mu waxoon ne sax ku ci feeñ dootoo réer ku ci réer dootoo feeñ te loola lu wéer la loo xam ne sëriñ bi dañoo sampoon ñeenti bant dafa sampoon ñeenti bantam di ci jaamu yàlla noon yi ñëw buddi ko sànni ne ko da nga bëgg a yàq suñu soldaar yi fii jumaa amu fi tax mu defoon tawassul ci xasidaam gu siiw googu di rabbana axrijna min hadihi alqaryati zalimi ba agsi ci laxuktub salaatam maxsalaamin bi alihi wa asaabihi wajxal bihi masjidi rahba sama boroom ci saasa xamal ko ne ko lii ñu la defkat kat dañ la ko wattalal jumaa ci Touba ak Njaareem kon mag ñi amoon pas-pas ñoo xamoon ñoo teeloon a gis gis ba te kon si Ibrahima Seye dafa bokkoon ci loolu ba tax moom ci saasa mu jël njabootam tudde ko jumaa ji yemu ca di di ko tuddee xutba yi bayaal bi soorol yi ak xasiday sëriñ bi loolu mosuñoo gis pas-pas bu toll noonu wax dëgg yàlla ci ci ci ci yoon wi maanaa loolu moom dafa bokk ci yi nga xam ne yoonu murit daf ko war a jël di ko wane naa ci pas-pas bu toll doon kon nag lii su fekkee ne yéen ñii ay sëtam ñëw ngeen xalaat ne loolu lu lu jaadu la ngeen delloo delloo ko ci njukkal wax dëgg yàlla jëf ju am solo la joo xam ne eh, ju rafet rafet la te it xam naa ne jëf ju sëriñ bi nangu lay doon ñun ñi nga xam ne nag dañoo bokk ak yéen liggéey bi nekkal leen fii ngeen nekkal ñu feneen amuñ lu dul rafetlu loolu sant ci it suñu seen yëfi bopp la nga xam ne waruñu leen ci sant waaye dañuy jàpp ne ñun ku ñuy fekk ci liggéey bi rek dañ laa war a sant ndax naka jekk xam nañ seen yéene ci liggéey bi ak seenu ànd su ngeen ñëweek su ngeen ñëwut saa su nekk ak wax yu rafet yi ak yéene yi waaye rawatina seen kilifa Cheikh Mouhamadul Mourtada mu Cheikh Mouhamadul Fadal waxtu wu nekk ñuy fekk fii ci di jàpp ci liggéey bi ak ci yéeneem ak ci ñaanam loolu ñun Muxaddamatul Xidma yëpp xam nañ ko bu baax ñu ngi ñaan ci ki nga xam ne mooy borom liggéey bi daal muy Serigne Touba nga xam ne ñun ñëpp moo tax ñuy def mu faj suñuy aajo ci darajay weer wi faj suñuy aajo ci darajay jumaa ji faj suñuy aajo ci darajay maam yi ak seen i pësteef di barakati xaadim rasul di ñaan it ni ngeen ko waxee wax dëgg yàlla mu doon loo xam ne lu gën a law la ndax wax dëgg yàlla yéen moom am ngeen ab cër ci jumaa ji moom moom yéen moom kenn ëpp leen cib cër waaw ndax loolu yàllaa ko def kon yàlla ko yàlla gën a dëgëral te te te te ful ko képp ku ci def dara suñu borom ful ko darajay weeru koor darajay wax di xawaaiji lazina daamu fi xidmati wa hablahum maraamu kàddu yooyu daal mooy kaddu yi nga xam ne ñu ngi ko doon yëkkati ci turu Serigne Afia Serigne Abdou Lahad Bousso mii mooy secrétaire général Moukhaddamatoul Khidma Serigne Abdou Lahad Maam Asta moo jiite commission sociale et relations extérieures ak mboolem Serigne fallu Mbacké me moo jiite organisation muy bale yeeg yi matériel bi fi ñëw yëpp ci loxoom lay tege liggéey ci jumaa yëpp ci loxoom ñëw ñëw na it ci ci waxtoom ndax biir koor gi li nga li tàmbalee fajar ba ba ba ñu naafi la lépp lu ngeen gis muy taq-taq wala bant wala lu mën a doon ba lañ fay jógee danañ ko nettoyé ba mu set wicc balaa kenn naafi la si lu mbooloo mi bëri bëri ak li ñuy taqal lépp danañ ko nettoyé ba mu set te loolu ci matériel bi lañ koy lañ lañ lañ koy def nga xëy daanaka lu mat juróomi téeméeri nit ak fanweer ak nangam danañ fiy xëy fajar ba guddi di fi liggéey si te te ay commission yu seddalikoo la loolu kon tawfeex la su su ngeen dollee matériel bi koy setal rawatina indi suukar ak tàndarma ak ndox ci yoo xam ne nit ñi dañ koy jëfandikoo ci saas daal loolu daal wax dëgg yàlla jëf ju rëy la yoo xam ne ñu ngi ciy sant bu baax di ci gërëm di ñaan suñu borom mu fay ñu te defal ñu tawfeex asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu